bismillah auzu billahi min aseytaani rajim bismillahi rahmaani rahim rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa bi ñu sant yàlla julli ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam di sant Cheikh Ahmadou Bamba di jaajëfal maam Cheikh Ibrahima Fall Lamp Muridiin di ziare bu baax mboolem mbàkki taalibe yi nga xam ne yëpp ñu ngi teewlu émission bi nga xam ne mooy diine ak jamono ñu koy defee fii ki Touba Argentine rawatina fii ki dëkk bi ñu koy wax capital Buenos Aires mbokk yi di ziare bu baax mbooleem ñi nga xam ne ñoo lañ bokkal barab bi muy waa ONCE rawatina gars mbàkki taalibe yi nga xam ne sax ñoo liggéey ci barab yi nga xam ne mooy barab yu faram-fàccee yi ñi nga xam ne ngi Flores gars yëpp ndeysaan ñu ngi leen bu baax ndeysaan kenn ku nekk wax dëgg yàlla bis bu seet ñu déglu seen i nuyoo ak seen yóbbante di sant ak ñi nga xam ne suñu moom dogal na am nañu jaxasoo ñu ñuy encouragé bu baax ci liggéey bi di ñaan li nga xamante ne bi ki ni rek moom lañ ci jublu yàlla nañu ko sama borom defalal naa rek incha allahu taala day yaakaar naa nga xam ne juñooñ na lañ juñooñ nañ leen ko ci suñu émission bële passé muy mbokki taalibe yi nga xamante ne bi ki ne rawatina jeunes yi nga xam ne sama borom dafa dogal ndeysaan ñuy jël géej yi ba fii ñuy wax ak yow ndeysaan sama borom dogal amaguñ ci saafara bu wér ba la ci ñàkk ci ay bakkan ci ay ndaw kenn xamul nu mu toll rawatina barab boobu nga xam ne ma la ñuy wax Espagne sabab ñu am fa suñu mbokkam taali mu ñuy wax sëriñ Lo ndeysaan muy nit ku baax koo xam ndeysaan foofu la nekk ci Espagne sama borom boole ñu it ndeysaan ñu xamante ma moom ci kàddu émigré diaspora ñu fay daan def ay émission bu koy teewlu ba sama borom dogal ñu fasante ci coloré tey jii incha allahu taala moom la ñu fas yéene jël waxtaan ci ak moom ci nga xamante ne bi kii nii ma nga fay xew xam naa ba la ñoo jël sëñ Modou yaakaar naa waa régie sax jot nañ ko léegi xam naa dañ ko jël léegi insha allahu taala mu mel ni xam naa dañ ci profité di wax ni yaakaar naa sax am na beneen xew-xew boo xam ne moom surprise la boo xam ne jot nañ ko fan yi xam naa dinañ ci ñëw ak sëñ Modou insha allahu taala mu wax ñu la moo xew sëñ Modou bu fekkee yaa ngi may yaa maa ngi lay nuyu salaamaaleykum wa rahmatullah Abdoulaye Bamba Sarr waaleykum salaam wa rahmatullah Abdoulaye maa ngi lay maa ngi bu baax a baax nu ngeen waaw di leen ñaanal jàmm. ñu ngi sant yàlla bu baax. ndeysaan ñi ngi jégalu nag tey dafa mel ni di leen ñaanal jàmm. day dafa mel ni xam naa <laughs> suñu ko ñu mën a déggante bu baax a baax a baax incha allahu taala sëñ Modou noo yendoo. wallaay wallaay ñu ngi sant yàlla bu baax ñu ngi sant yàlla bu baax walaay Bamba. ndeysaan. alhamdulilah mu mel ne tey moom moom parce que moment bi wax ak man man fi may wax ak yéen man maa ngi ci 8 4 minutes yow yaakaar naa su ma juul yaa yaa ngi ci minute yaakaar naa. waaw maa ngi ci minuit quatre minutes fii ma wax ak yow waaye nag amul benn solo ndax euh, ñun ñëpp a ko bokk di kontaan bu baax a baax di leen ñaanal jàmm ak tawfiq ak tasiir ndeysaan amin di ñaan yàlla muy borom jàmm yan nañu defal jàmm amin maa ngi tudd Mouhamadou mhm. euh, dëkk Sénégal waaye maa ngi fii ci Espagne euh, zone bi ñuy wax Grenada di mhm. daan doole waaw góor sëñ Modou ndeysaan sëñ Modou fa nga dëkk ci Sénégal ñu ngi ziar bu maa ngi dëkk dëkk bu ñuy wax Latmingué foofu laa dëkk ci Sénégal. Latmingué ban gox la Saloum wala Nord wala Bawol wala fan. si saa si sa si Saloum après Kaolack. soo génnee Kaolack Pont Noiro ba yegg Tawando. Mhm. Euh, diggante euh, tali bi dem Ndo Nioro Proxaan. Mhm. ak bi dem Kër ma Madiabel am na beneen tali bu wàcc jëm penku foofu moo jëm Latmingué foofu laa dëkk. ndeysaan. sëñ Modou xam naa du ma la tey yàgg ndax yaakaar naa ne yow amoo jot tey suñu moom dafa dogal da nga yëngu tey suñu heure yi dafa xaw a rawante lu ma 4 heures moo tax xam naa damay duggee ci waxtaan wi directement incha allahu taala incha allah euh, sëñ nekk ci Espagne Granada nga wax sama juumul waaw maa ngi Grenada Grenada laa nekk euh, ñëwee Espagne ak léegi combien de temps bu nga def Espagne yow ba nga ñëw Espagne ak léegi maa ngi jege dix ans parce que 2011 laa fi ñëw le le dix mois de août laa ñëw fii France laa wàcc France jógee France fii maa fi yegg quinze août mhm. waaw deux mhm. bi ngay ñëw Espagne ndax danga jaar ci mbëkk mi wala da ngaa dugg ci voie normal non voie normale laa jël avion laa jël wàcc France ndeysaan def ab diir doog a ñëw fii Espagne ndeysaan waaw kan nga fekk son Espagne bi ngay ñëw da nga amoon ay ñoo fi xam wala da nga ñëwoon directement rek pour comme Modou Modou ko ñëpp di am na suma benn suma benn rakk doomu ndey bi ñu da ko wax Ibrahima mm-hmm. fi fii laa nekk moom nii sax moom mu ngi ñoo bokk benn piso buñ dëkk ma ak moom ndeysaan mais bi ma ñëwee bi ma ñëwee 2011 mm-hmm. fekk euh, ndax booba crise bi mooy loolu mm-hmm. léegi ma ñëw euh, nekk fii ne man léegi yow yaa ngi doog a yegg si te mhm. fii nii du palaasu jaay ndax palaasu liggéey la te prière liggéey bi commencé wul mhm, bàyyil ma yóbbu la Malaga mu ne ma bàyyil ma yóbbu la Malaga mhm. ma ma dem Malaga euh, allo ma doog a dellusiwaat fii Grenada d'accord mm. jërëjëf sëñ Modou ah, dama euh, xam naa ni damay ñëw ak yow ci bi nga xam ne moo xew ci réew mi maanaam fan yi yaakaar naa su ma jumoon maa ngi dégg jot benn information le vingt le vingt yaakaar naa am na téeméeri nit ak juróom fukk yoo xam ne ñu ngi jóge woon Sénégal dugg ci mbëkk mi di ñëw Espagne yàlla dogal maa ngi ko dégg sax ci Maodo mhm. ñu wax ni téeméer yépp suñ borom dafa dogal kenn xamuñu fu ñu féete juróom fukk rek la ñu mujj gis ñoom yow ndax information boobu agsi woon na ci yow waaw yegg si na si man information boobu yegg na si man ndax fii nii may wax ak yow. waaw. Euh, dëgg la nag euh, euh, maanaam dafa am ñu bëri ñoo xam ne nii yàlla daf maa booleeg ñoom. ndeysaan. mais si wàllu tubaab yi ak ci wàllu ni suma mbokki taalibe yi nekk fii. Mhm. ba tax information boo am lu si bëri dama koy yëg dama koy teel a yëg ci ñu koy njëkk a yëg si laay bokk. bi affaire boobu amee wax dëgg yàlla am na for ay néew. ay néew. yuñ for ci pegg tefes gi. allahu ci Espagne. waaw fii ci Espagne waaye nag man gis gisuma ko mais keroog bi affaire bi amee lañ ma woo direct wax ma ko. ndeysaan. mu nekk affaire boo xam ne bu yéeme la bu métti gis. ndeysaan ndeysaan. waaw ndax su nekkul dara der bi rek. Mm-hmm. mu demee noonu daay métti te tiis la. ndeysaan. wallaay amoon naa si mét lu ma métti lool nag waaye nag euh, jaam bi. ak pexe mel euh, ko wallaay lii kese la. ndeysaan sëñ Modou maanaam. Mm. Euh, li ma la bëgg a laaj dafa mel ni jot nañ beneen information boo xam ne yoo xam ne ñi tamit biir Espagne ñi nga xam ne yàlla dafa dogal sax mm. ñëwoon nañ ñoom ci voie normale mais yàlla dogal amaguñu ay kayit mbëkk mi mhm. mbëkk mi dafa indi far ñoom la ñuy wax mhm. la ñuy wax naan maanaam ñax goo dana lakk lakkaale gu tooy maanaam fi mu ne ñoom dégg naa kuñ ci jàpp ak tépp boo mënti def sa amul kayit dana lay rapatrier Sénégal ndax loolu lu wér la euh, du wax ne wér na de du ma wax it parce que fii may wax ak yow waaw weer bii ñu génne nii euh, le le dix le euh, neuf lañ indi le huit allo. dafa ma ne waaw bisimilah. ku ci waaw allo waaw. maa ngi lay dégg nga ne le le huit lañ annoncé woon ab boobu sama benn aw. Mhm. le huit bi passé. waaw. lañ ko annoncé woon ne fii le onze kuñ jàpp dañ lay delloo rapatrié Sénégal. Mhm. si la si la ma si la wooyee sama benn avocat mu ne ma. loolu am na wax nañ ko waaye nag soo gisee wax ko ma ne ko ah mu ne ma Mauritanie lañ leen a yóbbu. Oh. ma ne ko ah pour lan même ñu amut kayit sax te yàgg fii. Mm-hmm. mu ma waa parce que xàmmeewuñ ñu am kayit ak ñu amut kayit te am na gaal goo xam ne dafa teer fi ñu wax Moutourine. Moutourine waaw. Moutourine ak fii ma nekk. Mauritanie ak fii ma nekk mu ngi ci euh, cent cinquante kilomètres euh, soixante dix kilo ak safarala ak quatre vingt kilomètres la la la war a man ndax ci région bi la bokk euh, région Grenada d'accord mu ne dafa am ñu dafa am ñu fa teer te biñ teeree gaal gi li mu yeboon ñëpp a wàcc daw bàyyi fa xottu gaal gi dugg ci biir dëkk bi mm-hmm. ah d'accord ma ne ma ne ko am ah, mu ne ma waa mu ne ma loolee tax nag léegi duñ xàmmee il faut suñ la jàppee dañ lay rapatrier ma ne ko ah mu ne ma waaw booba euh, sama gars yi nekk fii ñu bëri te amuñ kayit laa jox information bi ne leen ak daara ak daara yu bëri sax fii xamal ne ku ci am Dakar wala ku ci am sa moodu boo xam ne yéen a bokk dëkk te kayit laal biyee ko loolu mhm. ñu ne ma waa baax na information bi tas ñu mhm. bëri dégg ko macha allah waaw waaye nag wax dëgg la dégg gu fii nii zone bi ma nekk kuñ jàpp yóbbu. ah d' accord d' accord d' accord. mu euh, euh, mel ni maa ngi ñoo gisandoo barki démb barki démb ñi ngi seetaan ci kaddu immigré diaspora ñu dugal benn vidéo boo xam ne ki ko filmé mi ngi ko filmé Espagne boobu ngeen nekk. ne Macky Sall. mi nga xam ne mooy njiitu Sénégal yi fële ca Sénégal ak. ministre bi bu ñuy wax ay Tall Sall dañoo signé benn décret boo xamante ne. Mhm. képp ku ñu jàppati foofu ci Espagne te amoo document wala da ngaa ñëw. Mhm. sin légal lay lay maam rapatrier dañ lay delloo loolu yow ndax information bi. waaw ci yéen. waaw information bi si na ci ñun te am na sax loo lu ci dolleeku. mooy loolu mooy la san maanaam tey ku fi nekk ñu doon ñëw ci gaal yi. waaw. xam nga da ngay da ngay jaar camp ba te suñ lay libéré dañ lay jox. Euh, benn document boo xam ne nii maanaam benn papel boo benn papel boo xam ne ñoo la wane ne ci camp nga génnee. waaw. essentiel boobu moom nga war a doxee. Hmm, comme genre précaria ba dee fii ci arrêté ñu wax précaria. waaw léegi léegi waaw suñ la arrêté. Mhm. maanaam su la policier yi pijaaree moom nga leen ay woon. Hmm, d'accord. léegi soo leen wonee ñu xam ne kii si gaali la bàyyi ko mais ginnaaw bi affaire boobu amee ba léegi gaa yi kenn si nangut a génn yoro kayit boobu si ñu yoro kayit. ah parce que ñi ngi pensaar bu fekkente ne bi nga jox nañ ko kon jàppaleen delloo leen ñoom. eso voilà loolu la parce que tey maanaam tey su nekkee man libéré nañ ma si camp bi ma yor kayit googu. waaw génn police yi pijaar ma. léegi ne ma yow foo jóge ak foo dëkk ma génne kayit ga jox ko su boobaa day facile pour mu delloo ji ma. mais su nekkee génnewuma benn kayit awma benn étudiant boo xam ne nii war na ne kii. fu mu dëkk ma la kii xamut fu mu dëkk doo ko mën a yóbbu. ok loolu la moo tax gaay gaay yu bëri euh, léegi ku ci génn te doon Dakar. Mhm. doo doo doo génne si kayit boobu. ndeysaan mais yéen Modou Modou yi fa nekk di ay enseignants ñu leen di ay xefe nan ngeen di dundee bi am nga xam ne mhm. canalistes yi ñi ngi daw di ñëw yéen nan ngeen ko dundee yéen ak Dakar yi foofu noonu Dakar yi instant bi xam naa ne ndeysaan. Euh. buñ toggee ci am nañ sax xam naa ne ndeysaan du toj ndeysaan ndax tiit jaxale guñ jaaxle. waaw euh, Laye Bamba dundee nañ ko dund bu métti. ndeysaan. parce que nit ku weex maanaam li sëñ bu mag bi waxoon rek xalaa ku li al waaw te du mës jóg ci ñoom te day génn ñu di la wax loo xam ne nii ndeysaan yow doo bëgg dara ci àddina mm-hmm, ndeysaan walaay ndeysaan dëgg te maanaam li li li nga waxoon sa njëlbeen wax rek kër njugub day lakk lakkaale kër bi tax te mooy loolu parce que tey am na ñoo xam ne nii gaa ñu fi am fukki at. Mhm. ak juróom amuñ kayit. Quinceaños. Quinceaños no tiene papel. nada ninguno. te li ko war. mais Koutias yaa ngi dégg bu baax. parce que li tax mooy. waaw. Euh, si euh, li ko waral mooy. Mhm. maanaam nit ñi euh, xam nga ki ki taxan di jaaru ak ki taxan lobbu duñ benn. waaw ndax euh, am na ñoo xam ne nii tey li leen tax a jóg dañ koy xam. Mhm. am na ñoo xam ne nii tey maanaam ñoom seen sama fu la ñuy demee. loolu dëgg la. loolu nag soo dundee ñoom nekk ak ñoom fii. Mhm. maanaam ku ci dajeeg ñu mel noonu ku ci dajeeg tubaab yi. Mhm. di suñ gisee kenn dañuy yaakaar ne ñëpp yem. loolu moom dëgg la tool yi moom noonu la ñuy dundee ci nit ku ñuul moom lu kenn ki pour ñoom ñëpp a yem. ok ok mooy mooy wax rek. mooy waaye da nga gis ñoo xam. wallaahi laasim fii may wax ak yow. Mm-hmm. na koo xam ne ñu de ko ma bàyyi ma fenn. tey mm-hmm. soo ko wooyee dina la wax ne loolu lu mm-hmm. may wax yow am na campagne bu commencé. commencé jamono yi. muy asaytuuna bi. asaytuuna waaw. Euh, diwu olive bi fu mu nii ku gars yi pensaan nañ euh, récolté ko mais fi may wax ak yow. mooy ci tool yi. waaw ci tool yi. waaw. ñi bëgg dara ñu ngi ciy liggéey. kon kon loolu kon kon loolu rankaar na imbesaar ngeen. allo. ma ne kon loolu tàmbali na loolu commencé na commencé ngeen ko. allo. ñu ngi lay dégg bu fekkee technicien yi ñu ngi ñu leer waaw waaw commencé nañ ko laaj ambassade waaw waaw léegi maa ngi lay dégg bu baax commencé nañ ko vamos waaw léegi commencé nañ ko gi nga ñu si bëgg dara mm-hmm. ñu ngi siy liggéey te fii may wax ak lay Bamba waaw wallaay laa si eh, lu mat fanweeri nit mm-hmm. jëlee naa leen si ay région indi leen fii. ci ay provincia. waaw ci provincia indi leen fii pour ñu dóor waat am lu ñu yóbbul seen njaboot. waaw oh, góor waay si wallaahi laa si yàlla rek. yàlla na yàlla fay ci jëf ju baax yàlla na yàlla fay loolu baax la ndeysaan. ndax euh, ndax fii ma wax ak yow. man kenn laa duwuma ñaar te mënumaa jël sama wërsëg jël wërsëgu jàmbur. loolu dëgg la ndeysaan yàlla na ko ñëpp xamee noonu waaw góor. Euh, te maanaam tey euh, yàlla boole na ak tubaab yi gaa yàgguma fi ndax am na ñoo xam ne yàgg ñoo fi yàgg fu waaye fu mu ne suñ bëggee liggéey si man la ñëw kii. loolu taw féex la loolu. du sama njàmbaar nag loolu loolu sant yàlla la. du sama njàmbaar. maanaam damaa gëm ne yàlla kenn la. loolu dëgg la. te nit ku ne. Mhm. loolu dëgg la sëñ Modou bala maa xus foofu dama la am benn question bu la bëgg a laaj ci diggante bi pour ma après caar ci hmm. damay dégg ne ñi nga xam ne ñi ngi leen di hmm. rapatrier di leen delloo Sénégal dégg naa gouvernement bu Espagne wala boobu hmm. état bu Espagne da koy boole ak ay da koy accompagner ak ay milliards yu bare bare bari te milliards yooyu moom du ma dégg suñu njiiti réew du ko war est ce que loolu moom yow am nga ci ko wax xam nga avocat yi maanaam ñoom dara umpul leen non loolu kay man sax dégg naa tey nit ñu bari ñoo xam ne nee lu wér la loolu moom dara du ko lu wér la. waaw euh, li ma lay wax nii maanaam damaa bëgg euh, ndax bëggumaa juum ci seen li may wax di wax lu doonul noonu. ndeysaan loolu dëgg la. moo tax moo tax ci la wax ni la avocat bi si boppam ndax mooy ki yor pro euh, avocat xam nga avocat yi dañ bëri ndax ñu ci jóg étranger yi pour liggéey étranger yi. Mm-hmm. dara du leen ump. moom nee na ma ñu ngi ko wax Carmel nee na ma moo Mamadou ma ne ko naa mu ne ma fii maay wax ak yow ma ne amu ah, mu ne ma fuñ jëlloo ji dañ laa jox. mu ne la ko delloo ji ne ko ah, mu ne ma mën ci man kooka mën naa cee liggéey. ah. kuñ jëlloo ji danañ la jox loo xam ne ni maanaam liñ leen jox liñ leen ay jox maanaam kuñ jëlloo ji ku si nekk si la joxoon li sa directeur. li sa sa cër. ma nga cee toog Sénégal léegi jàpp sa njàmbur. mën nga see toog Sénégal nga investir ci liggéey ma ne ko ah ci mu ma lii maa la ko wax. lu am la sunu njiit yi dal dama génneel bilan bi ne ma gis nga lii ma ne ko mu ne ma génneel ma bilan bi ne ma gis nga lii ma ne ko ah mu ma lu am la. te loolu avocat la ko wax. léegi xam nga ma ne ah mu ne ma avocat bi moo ma ko wax. Mm-hmm. te nee na ma dañ ko wote assemblée bañ accordé loolu. Mm-hmm. ñu def ko def. xam nga kon tubaab tubaab yi lépp lu ñuy def dañ koy def si tey lu wér la gis nga li ma lay wax nii mm-hmm. lu wér la man du ma dëgg la parce que moo di des dégg benn yokk ci ñaar mm-hmm. waaye nag bëri ñoo xam ne nii tey duñu dégg mm-hmm. dañ ko saytu ba mu leer leen ñu wax loolu dëgg la man lii ma lay wax nii dama ci am lu leer parce que tey kii ma ki ma ko wax du der bu ñuul ni man. nit ku xees la. te kooku moom der bu xees la te kooku fekk alxames daay dem mm, euh, naka lañ ko waxee euh, ensemble. waaw. chaque jeudi daay dem ensemble mbala chaque euh, vendredi. ndeysaan. waaw da ciy xam da am profil loolu lu wér la. ndeysaan képp kuñ delloo ji maanaam la. les ay yelleef si yow suñ la ko joxoon mën ngay toog Sénégal investir. te mais man li ma si jaaxal dégg guma benn yoon ay sénégalais yu ñu rapatrié ñu ne état bi jox na leen lii man loolu dégg guma ko mais xaalis boobu léegi lay dugg. ah man ah, moo jaaxal ñoom nag. ah waaye sa biir yi de jaamu yàlla yi de loolee leen jaaxal. loolu jaamu yàlla yi de loolee leen jaaxal. ndax moom mento bii nii jamono bii ñu wax ak yow ngay àddu nga teel ndax gëj ngaa déggaat ñu ne gaal teel na wala gëj ngaa dégg ci gaal teel na wala ay daxaar ñëw nañ ci dëkk waaw waaw gëj naa koy dégg depuis ba weer wi le premier ci weer bi passé. ci laa gëj a dégg loolu ba fii may wax ak yow. ndax ni ngeen di dundee ci biir dëkk bi am na ay contrôle yu sévère yoo xam ne alkaati yi ñu ngi koy def. waaw hmm. am na contrôle yu sévère am na. am na. ci ay ci ay ci ay. ci ay subte bi ci ay subte bi ay oh. station de train yi. ci parado ci kër yi. waaw ci ay di nga fii may zone bi ma nekk Grenada. waaw Grenada. E, station autobus ku amul këyit ñemoo fay wàcc. pour diir boobu. ah sañ sañ sañ sañ sañ Modou Lo yow ba am nga këyit. waaw muy dogal ah, ko wàll ñu ko amagul waaye. yàlla nag ah, am naa këyit si lay bàmba. ndeysaan yàlla na ko wàll ñu ko amagul ndeysaan. allahuma amin moom laay heure bu ma jullee loolu laay ñaanal suñu ndeysaan yàlla mën na ko def laa sim te gis nga laay Bamba waaw fii may wax ak yow uh-huh. deux mille onze laa fi ñëw deux mille quatorze laa uh-huh. dara lu du permis Sénégal allo waaw ñu ngi lay dégg bu baax yoruma dara lu dul permis Sénégal ak international bi laa yor te international bi. trois ans da nga koy renouveler. d'accord xam naa waaw waaw loolu wér loolu dëgg la. waaye waaye gis nga fii may wax ak yow Laye Bamba waaw. jub rek am solo. te maanaam looy def ngir yàlla. bokkuma mhm. ngay def ngir doomu aadama. Mhm. waaye looy def ngir yàlla. Mhm. doo si jëlee gàcce wallahi laasim deux mille quatorze laa jënd oto benn laago naa laa njëkk jënd amul fu ma dugg nag moom si Espagne ndeysaan fii may waxal yow boo leen ko soxla passeport si mon dañ la naan demal si Moodu wallahi laasim maa ngi jublu penku ndeysaan dëgg la dëgg la rawal suñu Moodu xam nañ la bu baax dañ la na dañ dañ la naan demal ci Moodu mu hmm. yóbbu la maa lay jël yóbbu la Madrid capital ndeysaan te ñi may yóbbu ñu doon Dakar yëpp ñi may yóbbu ñu doon Dakar yëpp maa ñoo ma amuñ kayit awma kayit <laughs> waaye yàlla may sàmm ak li baax li may def ngir yàlla rek moo tax ki ko wallaay laa si billaay wallaay tallaay dëgg la dëgg la dëgg la suñu moto rawal mosu mosuma see mosuma see am problème problème bu ma mos a am si oto mooy weeru koor yi passé mhm. damaa dem Madrid ba wàcce gars yi ba pare jógee foofu noonu mutrin mooy fi ma la waxoon ne foofu la gaar gi Mhm. di ñibbi si kër gi pour war a dallu si ci benn rond point la oto bi topp. allahu akbar si. wallaay laa si waaye fii may wax ak yow barke alquran laa wax du weer bu ma xotti ba ma ba dara di so dara jotu ma dara. fii may loolu mat naa loolu sant yàlla loolu mat naa sant yàlla sëñ Modou Lo. Euh, kon euh, sant yàlla moo tax gis nga li ma dégg kii. sëñ Modou xam naa dama damay ayalaat tuuti rek bala ñoo sori campagne boobu nga xam ne mooy am foofu ci dëkk bi campagne bi campagne ay tool la wala. waa ay tool asaytuuna. ndax ko amul kii ndax ko amul kayit wax mais nag politique lay doon parce que lenn la man maa lay utal kayit. Mhm. comme ça damay gis Modou boo xam ne nii am na kayit te liggéeyul. ndeysaan te bëgg na kayitam liggéey bëgg mm-hmm. nañu ñu altaan ko ma ne ko euh, ndax sa kayit bëgg nga mu liggéey mu ne waaw te boobay dama ci waxtaan ak moom ba mu ne waaw mm, d'accord da am da xanaa da ci am ma ne ko léegi jox waaw jox ma sa kayit su nekkee bëgg nga mu liggéey parce que kayit bi dañ koy cotisel mm. café bi moo koy cotisel maanaam diya yi ngay liggéey la koy cotiser waaw léegi maanaam soo demee yow ba diye yi la laaj mag mën ngay dugal paaro yow dafa yeeku sa paro maanaam paro euh, xam war nga ko mën a xam sax paro. xam naa paro. waaw léegi da ngay dugal paaro dafa yeeg kooka sa paro di lekk. Hmm, waaw d'accord d'accord. lii la léegi nag borom kayit bi su ma ko su ma ñëwee ne xefe bi mu ne ma ne ko ñaata nit nga soxla mu ne ma nàngam. Hmm. indil ma nangami kayit ma yëkkati kayit yooyu am na ñoo xam ne nii sax duñ fekkee dañ mën a mandat ko si wax sax ma foto ko mandat leen ko. waaw léegi ñoom ñu altaar ko. sécurité sociale léegi suñ mm-hmm. surtout fu ne nii nga xam ne nii feebar bi moo tax képp kuñ ci altaar dañ laaj dañ may envoyé ko si kante boo wan ne yow mii da ngay dem pour liggéey pour su la police guardia civil yi fiy jaaree. Mm-hmm. ne la foo jëm nga ne leen lii bu nekk cinq. cinq personnes la doon def mais léegi ñiy liggéey quatre la ñuy def. quatre campagne bi ñaata tempo la yére. Euh, am nañu seen dépense yi fexe yi ngay kéere am na ñoo xam ne seen tool yi mën nañoo def trois mois. Hmm. am ñoo xam ne nii ñu ñu dañuy def deux mois am ñoo xam ne nii dañuy def un mois. Hmm. quinze jours am ñoo xam ne duñ matal loolu sax. Hmm. waaw sa dépense kii nga tokaar rek. d'accord. jërëjëf sëñ Modou mu mel ni kàddu yi xam naa am na solo duma ma la bàyyi te awma beneen point boo xam ne dinaa ko xóotal tuddi parce que dafa mel ni su ma jëmal antes ñaari weer ci mhm. ñaari weer ci ginnaaw jàpp ñetti weer mais neen déggoon nañ ci waa mhm. Espagne seen gouvernement bi ñuy wax ne dañuy maye kayit mais dépendé ci ñi nga xam que ne ay xale lañ quoi ñoom la ñuy may kayit ndax may kayit boobu nekkoon na xam loo xam que nii rankaroon wala wala wala amul woon waaw dafa daggoon nag soo mënee baamtuwaat si te jéggalu rek nga baamtuwaat ko kay incha allah taala léegi dama ni dama wax ni mu mel ni jamono y jamono yële ci ginnaaw bi pandémie bi di war am deux mois trois mois dafa mel ni déggoon nañ foofu mhm. wax ne ñoom dinañ may kayit mhm. mais xale yi lañ ko nga xam ne ay xale lañ te def nañ ci yenn kër yenn tempo yi te amuñu woon kayit dama xam ne ba xam information yooyu yoon nga ko dégg wala euh, ñu mayoon waaw euh, information yooyu jotoon jotoon naa koy dégg mais wérul. ah foo information la ko wérul. waaw wérul ndax su wérul. Uh-huh. parce que lépp lu wax rek maanaam dafa am luñ koy dañ koy wote ensemble bañ d'accord. Hmm, d'accord. léegi léegi ñii dañ d'accord ñi d'accord ëpp ndax soo ko dañ lañ la li ma avocat ne ma nekkoon ne. Euh, wax lañ waaw. waaw. immigré yi nekk Italie yëpp te amul kay yëpp fii la daw ñëw. ngir am kayit. mais léegi nag fu mu nekk nii comme nangu rek la ñuy def fu mu nekk nii soo soo amee trois ans ñetti at. Mhm. mën ngay dugal. ñetti at yi mm. maanaam at mu nekk dangay am preuve. d'accord. am na ñoo xam ne nii nag ñaari at am ñoo xam ne benn at lañ fi am yala dogal ñu dugal am kayit te mais dañ ne nay lijjanti preuve xam nga rek. Euh, dépende waaw sens waaw ak liggéey di sénégalais ci aju waaw moo di waaw. kii euh, ñu dem si kii am koo xam ne nii mën nga koy fay mu lijjanti la si lan. profit école xam nga profit moom lu kii la ndax dañuy wax ne kii kat bëgg na réew mi ndax mu ngi jàng làkk beeg yooyu. dëgg la mu mel ni sama technicien yi ñu ngi may signalé sax la ñuy dese ci waxtu bëreetul ñetti minute la xam naa damay damay directement ak yéen naka ngeen di mhm. dundee yéen Sénégalais yi foofu ci lu mel ni daayira yi ak ci agni san daayira bi xaaja bi ndax am ngeen jaxasoo bu baax ci seen biir macha allah fii may wax ak yow waaw man taalibe Baay laa waaye tey mhm. ñu bëri xamuñ ko ndeysaan ndax sang baax waaw yow moom waaju baax nga ndeysaan surtout surtout surtout suma mbokki murid yi bi suma papa wàcceeb liggéey waxuma waa kër bàyyi de waaw daayira waa kër sëñ Touba ñoo ma woo Malaga ma dem ñu wàcceel kaamil lu mat fukki kaamil ak lu teg oh, góor yàlla ci jot ak jàmm lay wallaay laa ci waaw kon xam nga ne man tey parce que yeneen bi dafa waxoon ne ak moo ma fay noo ma war a sutaan bi yaa yàlla ndeysaan tubaarkàlla waaw man man nag ci loolu laa kii ba tax man damaa bëgg sëñ Tuubaa bëgg goo xam ne nii wallaay laa si bi may nekk Sénégal dama daan sar si suma oto dem màggal su jotaan kenn ma yóbbu ma yóbbu leen Tuubaa doo ko rëccu ndeysaan damay pax ndool rek xam naa parce que temps bi may na ko sax waaw xam naa su matin sañ nee nañ ma li ma dese ci waxtu bëreetul xam naa sax waaw dinaa la ko may yow dinaa la ko may insha allahu man ngaa développé mm-hmm. euh, maanaam li tax ma bëgg sëñ Tuubaa gën koy bëgg mm-hmm. wallaay laa laay Bamba Sarr du bëgg lu la neex wala bëgg lu ma neex wala kii ndax man juróom fukki at am naa ko ak benn kon lépp lu ma fu ma dundoon foogu ma ma dundaat ndeysaan mbala mbala nga xam ne ànd naa ak lool su ma dundaatee juróom fukki at ak benn ndeysaan yàlla li may wax damay wax dëgg da bàkkaar bu gën a màgg mooy fen mm-hmm. fii may wax yow Malaga damaan deux mille quinze ñi ko defee Sankura laa màggal gi jawriñ sëñ am sa jóob ne ma Moodu ma ne ko naa mu ne ma ndax sa oto mën a mën naa dem ma ne ko waawow ci gàttal keroog bi may dem ba bañ def màggal gi ba màggal gi tas ñu ñibbi si bi ma ñëwee ba génne tunnel bi waaw le courant moteur bi dagg te ba muy dagg booba cinq euros laa yor sama poos ndeysaan waaye sëriñ bi du la seetaan ki taxoon ngay def dala seetaan ma ñëw. Mm-hmm. woo Groupe Groupe ñëw jël na ma yéen ñaata ñuy set ñu boole ko taxi sa place mu ñëw yóbbu ñu wàccee ñu. Mm-hmm. léegi ñu ne suba dinañ la indil oto bi. ma taxaw si kaaja bi ñu ne ah moom kay moom mu ngi noonu lu xew mu ne oto bi mooy <laughs> kii moo tax gis nga ko. ndeysaan na kii ma ne leen sëñ Tuubaa bi taxoon ma dem màggal. bi su nekkee dëgg la si man wallaahi karim dina defar dina defar oto bi su nekkee nag du dëgg ndax fartu la woon ko defar wallahi sikkuwul wallahi laa si barke alquranul karim mhm. dañ toog tafaa woo ma su ma xefe bi ne ma Mamadou ma ne ko mu ne ma ñaana boyi trawaxaar mhm. ma ne ko xaar ma si estanko bi mhm. mu ne ma am si ko dafa yàqu ñu nekk di liggéey ba mu yàgg mu ne ma ñaataa koy defar ma ne ko su ma amee treize cent euros dinaa ko defar trois mu charge mu charge yóbbu kaani gi dem almacen bi muy ñëw jaar banque retiré trois cent euros ñëw jox ma ma ne ko est-ce que ma kii al ñu ma di ko dagg si yow heure bu kii te fekk ba muy matee ma ne ko ah bo mu ma dafaa woo ma jóob moo waa Thiès la mu woo ma ne ma moo grand ma ne ko ah, xanaa mu dégg naa sooto bi dafa baax ma ne ko ah, mu mu ne ma fàllu mhm. bu nekk ci des goise bi nee na am na moteur bu mel noonu ma ne ko ah mu ne ma waaw mhm. mu ne ma maa ngi fay ñëw ma ne ko est-ce que man am naa mu ne ma bàyyil ma ñëw ñu seet ko mu taal oto ñëw ñu ànd mhm. yàlla seede na may wax de bañ yeggee waaw mu ne ko ana moteur bi mu ne ko moteur baa ngi nii moteur bu wow kon macha allah doole bi suñu si nekkoon macha allah mu ne mu ne ko ñaata la mu ne ko trois cent euros te nii poosam génne trois cent euros jox waa allahu akbar ah. ma ne ko ma ne ko Tafa Tafa lii nag mu ne ma hey oto bi ñu indi dama koy jaay te waa ji jël ko te xaalis bi defeewu ma ko dara te sa oto bi oto ñëpp la dama koy defar. suñ jo xanaa kon suñ jubaa gi nga fi ma taxaw su ma ronkoñ moo wadd. sëñ Modou Lo. waaw sëñ Jubaa moo ne afistuma sina ani dafatiri fala takkun xanqimati bi mooy Sëñ Tuubaa moo ne wat naa loo xam ne ci kaw kon boo may liggéeyal bul tayel Sëñ Tuubaa ku ko liggéeyal mu ah, kontaan naa wax dëgg yàlla bëgg naa lool xam naa ne si xaw nañoo xaababal sax ndax waxtaan wi dafa am solo te li nga fi développé nii ëppoon naa ba nga def barke wax dëgg yàlla kontaan naa sama xol sedd na parce que tey dama wax dëgg yàlla non maa ngi leen a ñaanal jàmm amiin barke Sëñ Tuubaa di ko sàkku si yéen di ñaan yàlla muy borom jàmm yal na ñu jàmmal. amiin amiin Mbacke suñu ba xam naa di la wax ne sa kàddu gi doon rek incha allah taala waaw yal nañu yàlla mujjal ci gàcce àddina ak àllaaxira loolu rek a jërëjëf amiin waay amiin amiin amiin amiin amiin amiin ndeysaan akasa jërëjëf jërëjëf jërëjëf akasa jërëjëf jërëjëf kon ñu sant bu baax a baax jërëjëf jërëjëf sañ Gora mi nga xamante ne bi ki ndeysaan moom yàlla dogal mu nekk ci bopp liggéey bi di directeur Touba TV Argentina ñi koy jaajëfal bu baax ci code fil bu am solo boobu nga xam ne mu jàll lisaan nga xam ne tey moo doon liggéey bi moo doon émission bi wax dëgg yàlla mbokk yi ñu ngi leen di jaajëfal bu baax di moo tax ñu def yàlla ñu sa borom ba nga xam ne ko ci Macky Sall waaye na ci na na ragal yàlla te xam ni al ma'tiyati ila baxtatan démb du ñu mukk ci lu mbétal te nag xam ne li fiy jële waajuru mu góor jële fi waajuru mu jigéen da ko fi bàyyi moom kon na ragal yàlla ci ñi nga xamante ne ni maanaam ñoom la jiite parce que rafetul say doomi réew di dee ci géej gi ndax sonn mënuñoo am liggéey seen fañ dëkk di galeeru ci àll bi génn di ñàkk seen ko ci seen loxo ngi jël ko yàlla ngi koy balaa mi te di ko ñaawlu di wax ne ko waa xiru dafa naa ñu tax wi dimbali di ñaan yàlla mi nga xamante ne bi dara taw ko yàlla nañu defal sami'na wa ata'na te yàlla nañu musal ci samina wa asina di wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu seen diine ak jamono ci beneen numéro ba koy jërë ngeen jëf